tey jii dañoo ñëw Touba ma ànd ak sama mm, collègue yi ñuy liggéeyandoo Expresso Sénégal ñëw euh, présenté ci ci xalif bi euh, euh, achèvement wu liggéey gi ñu tàmbali depuis avril ci programme buñ ñu tuddee Adiya Expresso Touba. programme bi tëdd nag ci def connectivité ci biir Grande Mosquée Touba bi. def connectivité ci université Cheikhul Khadim bi def connectivité ci résidence Cheikhul Khadim yi euh, nar ko feddali ci daara mu am jaara Poroxaan hôpitaux yi nekk fii biir Touba connectivité boobu pour mun a yombalal liggéey bi biir euh, jumaa ji biir université bi biir résidence yi bu ko defee lépp dina yemb ci wàllu connectivité fibre biñ fa def boo xam ne dina leen vraiment permettre ñu am qualité euh, ci internet bi ñu am tamit rapidité ci internet bi bu mu mën a couvrir seen euh, activité yëpp muy activité religieuse yeeg prière yi am ci biir mosquée bi ak beneen bërëb ñu mun ko retransmettre en direct en live grâce ak euh, fibre bi ñu leen bi ñu leen defal donc tey loolu moo doon sunu yitte ak sunuy tànk fii biir Touba boole ci nag ñu dëgmal 18 euh, safar mu nekk lu ñu ñor tamit nga xam ne chaque année dañuy ñëw ànd ak suñuy délégation ñëw ziar si xalif bi ziar porte parole bi euh, jébbal leen suñu addiya te bu leen fàtte laal cloche bi